moroom parce que dëgg kenn ko raay su dëggu amee dañ koy wax y a un problème bi ñuy monter comité électoral bi les potentiels responsables les vrais responsables du PDS n'ont pas été conviés ci montage comité électoral bi moo tax ñu taxaw ne ñoo lànk tey ñoo lànk ëllëg PDS dina taxaw parce que c'est un grand parti dinañu campagne pour référendum yi ñu yem loolu foofu nit ñu xam ko ñu leer ñun kenn du ñu ambale parti lañ yor kenn du ko jaay kenn du ko hypothéquer Thiès bu ñu fiy def dara les vrais responsables devront être convoqués mais ñu leen ci li nga xamante ne moom la teg comité électoral dañu xool li leen arrangé ñoo xam ne dem nañu réew mi bu yàgg ñu ànd ak ñoom teg seen comité électoral bu ko jiitale nit ñi ñoo lànk tey ñoo lànk ëllëg ñoo lànk gannaaw ëllëg affaire Karim Wade bi ñuy wax naan 17 milliards 17 virgule cinq milliards amancé nañ ko jël nañ ko si kaleeru si si xaalisu si si ay bien wu supposé Karim Wade lenn du si dëgg ay kàccum neen la su fekkante ne li ñuy wax am na nañu taxaw ak askan bi génnee kayitu kër yi ñu nangu si Karim Wade génnee xaalis yu ñu nangu génnee lépp teg ko pour askan bi gis ko jot na nag Macky Sall arrêté li muy def na ko arrêté parce que ñi ko wër muy Ousmane Tanor Dieng Amath Dansokho bi ne woon 4000 milliards te ñëpp xam ne lépp lu muy wax suba ba ngoon dara du si dëgg ay ay ay ay Ousmane Tanor Dieng Moustapha Niass bi nga xamante ne kenn xamul kan moo ko yar parce que saabu bu génnee kaddu wax jëfin mu ñaaw ñooñu ñooy conseil Macky Sall xam nga ne ñii doxalinu Sénégal taxu leen a jóg réussite Sénégal taxu leen a jóg liggéeyal askan bi taxu leen jóg comme gelwaal gi yëpp ay jàngoro la ñu àndal te yaakaar ñu fenn ku leen faj ku dul Macky Sall duñ ko xelal lu baax duñ dox xelal dama ne Macky Sall na dellusiwaat xelam ak xolam te lii muy def mu arrêté ko campagne lañ jëm ñu bu ko dugal si ay kàcc naka nangu te rétablir la vérité et libérer le frère Karim ak yeneen otage politique yi nga xamante